am na ku ñëw ci dëkk bi di am ay yëngatu yu mu fi def ma bëgg koo présenté waat encore sénégalais yi ndax dafa mel ne dañ koo fàtteegul kan mooy sa Idrissa Seck sa Seck nit la koo xam ne nii danaa ci tënk ñeent rek fii ci dëkk bi di Touba deret ji fi njëkk tuur muy sëtu Serigne Touba Idrissa Seck moo ko indi ndax amoon na ministre de l'intérieur amoon na ministre de justice procureur mi ngi fi woon mais kenn prononcé wutoon ci dossier boobu nu moom rek moo ne woon nan ko jëli ak nun ko mën a jëlee après après bi li yàlla dogal mu am moo wax ne duñ bàyyi même porte kii muy def ci dëkk bi lu ko neex ci réew mi ak ak famille boo mën a bokk beneen bi ci tegee ñëpp xam na ne amuñu lu dul ñaari doomi Serigne tubaay yi mujj ci kaw suuf muy seex Saaliwu Mbàkke ak seex Mouhamadou Mourtada ñoo nekk danoo tedd ci ñun bëri ba nga xam ne duñ ci egg waaye danañ xam ne lu ci nekk rek am na ay kàddu yu mu fa yëkkati woon ci ay jamono yoo xam ne umpul murid yi loolu umpul murid yi bërki démb la ca kàddu yooyu dëppoot ak kàddu yu tegge ne beneen bi ci tegee muy boo xam ne bu ma jege la am ma lu dul moom moo ma boolee ci Serigne Touba bu taxee ñuy wax Modou Bara Doli muy sëriñ Bara Doli Mbacke fii la taxaw ñu ànd ak sëñ Baara di xeex di xeex di xeex ba indi Ablaye Wade teg ko ci ci réew mi. ban ko tegee ci réew mi benn post vice président assemblée nationale bi PDS amoon ci biir euh, bi mu nekk opposant sëñ Baara Doole la ko Ablaye Wade joxoon jox ko numéro 4. loole ba mu amee bis ba nga xamee ne ñëw na assemblée di cessé ba mu wooyee sëñ Baara sëñ Baara na ko mbake lam ko wax publiquement mooy sëñ Baara xanaa xamoo fii kenn du fi wax Mbàkke président lañ fay wax loolu ba mu amee ba mu koy rappelaat sëñ Baara na ko ba yomal xëyaam Mbàkke laay wuyoo ba muy rappelé loolu ba muy rappelé waat di defaat vice président yi bi mu egsee ci turu sëñ Baara Doli ci turu sëñ Baara Doli da ko effacé def ko député simple kon jàpp naa ne ki nga xam ne mooy xeex ku wuyoo Mbàkke ci biir assemblée nationale tey bu del siwaatee taxaw biir tubaa gii dama jàpp ne murid yi moom fàttewuñu ca murid yi amuñu ku dul sëriñ Bamba yaakaar ñu ku dul sëriñ Bamba ca ku jàpp ne mën nga leen a nax dangay nax sa bopp ku jàpp ne mën nga leen a nax da nax sa sa bopp parce que damay wax ne sax bu ma déggee benn leader wala dara ñun ñii def politique xam lan mooy politique di wax naan man murid laa di ko wuyoo man ay rey damay jàpp nit bu nekkee murid koo ko nekkal sa bopp koo ko nekkal Serigne am na ko ne ku ne rek Serigne Touba am na ko kon jàpp naa ni nit ñi nan bàyyi xel ne loolu démb la rek bërki démb la rek beneen bi ci des gis naa dernière sortie muy wax ñàkk goo xam ne ki nga xam ne moom lañ àndal muy président Macky Sall ñàkk na ko jox cër président Wade man jàpp naa ba tey nit ñi dañoo fàttewul kan moo fi doon tudd nan la nit juddu di créer ba ñëw ci biiru ndeyam loolu yéen ñi jàng nasaraan yaakaar naa mënumaa prononcé moo boobu waaye xam ngeen ko yaakaar naa ne ka dem bay wax loolu ci mag ci biir réew mi ñëpp di ko dégg kooku wërta jox benn leçon kenn kon nit ñi jàpp naa ne fii di tuubaa bu jàppee ne loolu muy doxal wala loolu muy gëm-gëm lu ne murid la mu ngi nax boppam murid yi jamono yi ñu toll kenn mënu leen leen nax ndax am nañ seen i gëm-gëm ku leen gëm ak ku leen gëmut la nga gëm yow la concerne sax murid yow la concerne waaye kenn du ko ci jaar pour mën a am réew mi muy Sénégal kooku moom murid yi am nañ ci gis-gis yu mag kon boobu mooy ponk bi nga xam ne moom laa waxoon ne moom lañ ci njëkk jànkonteel ca fas yéene noonu jànkonte ak moom ci dëkk bi fas yéene noonu tamit jàkkaarloo moom ak ci dëkk bi ndax bokk nañ ci ñi nga xam ne yaakaar naa ci li ma mooy mbirum sëñ moom ku jàpp ne danga ngay koy nax sa bopp ngay nax beneen bi ci des mooy bu loolu jàllee nag maa ngi woote unité pour ñun responsable politique yépp ñu ànd nekk benn bàyyi xuloo bi bàyyi xeex bi xam ne fii ñu jëm am na luñ bëgg ca lan bëgg bëggal ko président Macky Sall loolu mooy suñ ndam waaye nag du tee kenn ku ne dafa war a yem fa war a yem ndax loo bëgg-bëgg jàmm lii dëgg moom wax ko kon liñ bëgg mooy unité nekk benn ànd liggéey pour fas yéene élection yi ñu jëm président am deuxième mandat premier tour. waaye ñu dikkaat ci ni loolu buñ ko defee ni ñu koy defee muy unité ànd nekk benn joxante cër jàppalante ànd ñun ñëpp nekk benn bis bu demee ba am ndam kenn ku ne kenn ku ne xam ne ku man kenn ku ne xam nga ku la man kon loolu ñun waa dëkk bi ñoo ko moom beneen bi ki tegee nag dama koy adressé suñ xarit président de la république danoo nekk ci dëkk bi di ko liggéeyal ñu xam ne Touba na bàyyi côté politique bi xel ndax mooy deuxième ville ci population ci Sénégal bàyyi xel politiciens yi ndax ñooy wàcc ci waar wi ñooy dem ci nit ñi ñooy dajale nit ñi ñooy mobiliser nit ñi mu jox leen ay doole ndax dëkk bi ay cadre ngi fi lu nekk fi ñu mën a yor réew mi sax ñu ngi fi mais mu doolee leen ngir lii ñu jëm ñu mën cee am ndam ndax saako bu ci dara nekkut du mën a taxaw ca loolu menn moom rek moo ko man kon appel boobu dañ ko koy def di ko lancé ne ko nam recevoir waa Dakar noonu la war a recevoir waa Touba ñun ñëpp ñu toog jàkkaarloog moom ndax ñi tax ñuy wax ay responsable ci dëkk bii dëggantaan boo ko doon calculer sax matul weer waaw kon lan moo war a tax ñu war a mën a toog ci taabal jàkkaarloog moom wax ko suñuy doléance moom it mu wax li mu bëgg ñu wax ko li bëgg ñu xool naka lan war a mën a def pour ànd ak moom liggéeyal ko ngir am ndam man lii laa koy ñaan bala yàgg ndax wolof dafa wax ne ab reer guddi lañ koy lekk waaye bëccëg lañ koy waajal fii ñu toll baatu français bi danaa ko ci dugal danaan maintenant au sommet loolu bas nga nga nga firil ma ko bii la moment bii la ngir ñu liggéey waaye bu ñu bàyyi ba élection yi des 4 mois man sëñ Modou Bara Dolly ah ku mu ci wàcc terrain bu muytu boo gëstoo doo ma gis ndax la ca cay am ci dëkk bii bu boobaa ñaanuma yàlla bokk ci waaye fii ñu toll dëkk bi bu ñu joxee ay moyens ñu ànd unité nekk benn wallaay la si war nañ ko mën a gañe ndax dëkk bi nekkutoon ci loxo PDS ñun ñi ko fekke ay opposant la woon ci loxo socialiste la nekkoon fan lañ jaar ba waa PDS gañe ca fop fi ñu jaar ba waa PDS gañe ko côté politique bi rek moo des ñu utiliser ko lii may wax excellence parti Jaxate témoin la ci fan lan jaaroon ci social fan lan jaaroon ci ndimbalante ak jàppalante fan lan jaaroon ci unité nekk benn sëñ Bara Dolly taxaw responsable yi ànd ak ñoom excellence parti Jaxate jàpp ci wàllu finance ñu gañe dëkk bi loolu mooy li fi amoon 2000 ci sama kanam la ba garandaa di di tàkk fii ci ci arrondissement yaakaar naa bokk naa ci nañ nekkoon ca bopp ba jiite ko kon fan jaar xam naa ko bu wér buñ dimbali buñ jàppee ci wàllu social yi dimbale sancaan yi wàcc ci ñoom jàppale leen président du ma wax ci bilan ndax dëgg-dëgg bilan bi jërul sax ñu koy waxati ndax am na bilan ba noppi waaye buñ ko centre ci bilan bi parce que am na ko ba noppi dëkk bi boo gisee lii mu fi xotti ci ay tali autoroute Ila ma dégg sama xarit Babacar Gueye démb di wax waay waay deuxième ville du Sénégal kay ab autoroute réew moo dem mu ne kay bal bala balay fenn di am autoroute yaakaar naa deuxième ville ba la ñuy xëttali ba pare ñuy waxaat feneen te fii moom ku ko bañ ak ku ko nangu Touba deuxième ville du Sénégal kon jàpp naa ne la Babacar Gueye di wax damaa jàpp ne bu demee France wala mu dem Yamoussoukro wala feneen a feneen ki ay ville ci adduna bi bu développement di continuer ci wàllu économie bala ñuy euh, soqale ay gox ci fenn dañuy seet dëkk yi ëpp doole ñaari capital yi ñu booleen booleen booleen autoroute kon loolu la président def defal ko ngir murid yëpp la autoroute Ila Touba 400 et quelques milliards murid yëpp la ko defal ndax ba la ngay xam loolu màggal jot te bu demee ci kanam ci wàllu économie réew mi danañ xam ban njariñ la am ca Sénégal gépp la ko defal ndax Touba dafa nekk ci digg bi kon boobu bokk na ci bi nga xam ne waxoon naa danaa ko leeral ma dem ci sama beneen côté bopp bi euh, dem ci sama beneen côté bopp bi muy ci sëriñ gi ndax man toujours damay wax ne bokk naa ci parmi ci sénégalais yi nga xam ne bu ma jëlee sama côté bii bu ma neex wax ci ci politique su ma jëlee sama bii bu ma neex wax ci ci sëriñ sëriñ si ñun loolu ndimbalu sëñ Tuubaa la moo ñu ko defal kenn mënu ci dara ku ñëw dana wax ak ñun ci réew mi waaye président dama koy wax ne ko ci wàllu politique ah bu mu dépendre ci sama côté sëriñ bi de parce que sëriñ si duñ wàcc ci ci terrain bi de politiciens yi ñooy wàcc ci terrain bi te it maa ngi koy alerte di ko wax ne na am lu mbàyyi bàyyi xel 2000 fii la ma fekk jamono socialiste si ñooy xeex de 89 laa dugg ci politique bu jàppale Ablaye Wade mu def mitin Mbàkke foofee la doon waxee ne sëñ Abdou Khadim sama sëriñ ca Cheikh Abdoulaye Lahat joxoon ndigal kon léegi ma xaw a fenn ah, lu bari fekk na ma fi ma koy alerte di ko wax na ko am na ñoo xam ne ci sëriñ si képp ku ma sa àndal dafa daal na leen bàyyi xelaa ah. man damaa am gëm-gëm ak i wëloor ku ma àndal ànd na ak yow ku ma bàyyi bàyyi naa yow président Macky Sall laa àndal ci guddi ñu toll waaye nag damay wax ne su si pare pour être mille tracement parce que parti bu man di doon bu ma ci sama bopp lu ma fay defete su demee ba sama dëgg mënu koo wax lu ma fay defete gëm moom kenn laa ko def muy Serigne Touba kon lii laa ne woon naa ko leeral pour ñun sénégalais yëpp ñu xam ne fii la nekk lii mooy li ñuy jariñ ci relation diplomate entre Gambie ak Sénégal ni mu rafetee gëj na ko rafete kon loolu lépp ñu koy ndokkal président Macky Sall di ko wax ne ko lii ñu jëm lii ñu jëm laa la wax avec unité ànd nekk benn ca bàyyi pitaale yi parce que am na ñoo xam ne ci biir parti yi ñu ngi fi nekk di pitaale guddi ak bëccëg ma ne pitaale du dem jëmul kër nit buy dox day doxee benn tànk jëm fi mu jëm bañ ba am nam waaye yaa ngi xalaat suba lu ñëw ngay teg fii tànk di teg fan tànk nañ ko arrêté ñi ànd ak Macky Sall nañ loolu ca xam ne ñoom ci seen jëm boppam seen i gëm-gëm mooy lan am nam kun àndal mu ne 1900 euh, après 1960 waay waay war a continuer di yor réew mi ci kaw ñu jàppale ko waaye ci dëgg nan bàyyi pitaal yi les responsables yi nga xam ne ñu ngi pitaale kon sëñ Modou Bara Dolly déclaration bi la waxoon ne day lay def di ñaanal mboolem Sénégal yi yàlla def fi jàmm ndax maam yi dañ ko fee liggéey ci Sénégal loolu bu ma ko waxee dem ci